asalaamualeykum mbokki auditeurs yi ñi ngi am mbégte di leen présenté seen émission bii ñuy wax diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag théâtre radiophonique la di am ci rajo bii ñuy wax Oxygène FM fréquence bi di 103 point 4 di am ci altine bu nekk à partir de 18 heures ba 19 heures redivision bi dimanche lay am ci 11 heures ba midi numéro téléphone bi nga mën a bokkee nag ci suñu émission bi am whatsapp moo nekk 77 424 94 73 ma baamtuwaat ko 77 424 94 73 ngir joxe say xalaat xalaat yooyu nag ñu mën koo jàllale waale ci émission bi jërëjëf. diisoo ngir aaru Africa Check moo leen ko may ànd ci ak Theatre for Change ak Google News Initiative. nijaay waaw waaw waaw jarbaat waaw nijaay jarbaat waaw waaw maa lay dégg waay dégg naa Mbanta Mare waaw waaw Mbanta Mare waaw doo am coronavirus ay jarbaat yow waa xamal li wax ni wéru de ya far nga jëlee information bi gis naa ko ci TikTok TikTok bi bind na ko WhatsApp bi tam ne nañ ma ko léegi mu ngi nii mun ngaa xool bari bari bari xoolal jarbaat li wax ni wérul ay TikTok yooyu doon xam nga ne ay ay ay kii wérul wala ay de gis nga jarbaat li leen di jaay mii wax dëgg la soo bëggee am ay information yu leer da ngay déglu émission bi ñu naan diisoo ngir aaru fee ca Oxygène FM 103 point 4 émission bi nag ñoo ngi koy dawal chaque lundi de 18h à 19h. oh waaye 18h 19h a fekkee bari jar baa jarul ngay yàkkamti xanaa xamoo ne loo gis bu am direct am na rediffusion loolu xale di wax dem baar baar xam baar lu la romb rek nga xooli ñu waat ko foofu noonu pour mu leer am na foofu noonu ci émission bi bu la xaar ko dimanche dimanche dinañ ko jàllale waat ci 11h ba midi te diisoo ngir aar boobu doon lépp luñ fay waxtaane moom xam luñ ko jagleel feebaru Covid 19 te am ay information yu leer. aaroo ci Covid 19 numéro WhatsApp bi 77 la 424 94 73 ma baamtuwaat ko 77 424 94 73 émission bi nag xaw ma lan lañ fay waxtaanee mbirum mbas bi nan la ñu aaroo ci Covid 19 ndax Covid 19 nag lu am la ñun rek ñoo ci mën a taxaw feebar bi jóge fi. diisoo ngir aaru Africa Tech moo leen ko may ànd ci ak Theatre for a Change ak Google News Initiative Oxygène ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sant tey jii nag dañu ñëw di waxtaan ak ànd ak Africa Check ak Théâtre for Change pour defal leen théâtre radiophonique théâtre radiophonique bi ñuy def nag dañ koy jëme ci wàllum information bi nga xam ne si moom la ñuy def ci vaccin bi maanaam kiir bi nga xam ne sii ne moom am ci Covid 19. bu pare naa fi nag sama invité sama invité dina ñëw daal toog ñu laaj ko xalaatam moom it ci gis-gisam ci émission bi. émission bi nag ci théâtre radiophonique la ngeen di déglu su ngeen dégloo ba pare am ngeen pour participer ci émission bi am na tamit ak laaj bi nga xam ne siine ne dinaa ko samp laaj. ngeen mun a participer ci émission bi am na ab numéro téléphone suñu numéro téléphone WhatsApp mooy 77 424 ma bamtuwaat ko numéro téléphone bi 77 la 424 94 73 bu ngeen ko dégloo pare bi ngeen mën a intervenir ci biir théâtre bi théâtre bi nag ab histoire la histoire Modou la léegi nag buñ koy teg da di déglu bu ngeen dégloo ba gis ne Modou mi ngi bëgg a jàll wala mu ngi bëgg a def li nga xam ne si ne méngoowul ak li nit ñi def ngeen wax stop daal di wax ci ban partie ngeen bëgg a bokkee ci émission bi ak ban acteur ngeen war a remplacer ci biir euh, pièce théâtre bi loolu moom mooy li nga xam ne si ne moom lañ koy defee fii ci rajo Oxygène di 103 point 4 FM euh, dina am solo nag euh, ngeen participer ci ñu waxtaan ci euh, di ngeen woote ci numéro bi ma waxoon sànq dama ciy dellu si rek muy 77 424 94 73. si jeune, 103.4 FM. waaye eh, eh, eh, ma gaay yéen yëg leen li ma yëg yëg na ma day mbéxam géej dafa faj korona waaw maa ko gis ci facebook bi ak ci instagram bi whatsapp ak tiktok yéen def leen ndànk waaye yéen yéen a ngi ci seen wax yi ba tey xanaa yéen da ngeen dul déglu rajo rajo émission bu bees tàkk mooy am bu tudd diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru loolu moom fu mu am émission bi nag muy waxtaanee lii di mbasum Covid 19. mi ngi amee ci rajo Oxygène FM. fréquence bi di 103 point 4. ah loolu de man wax dëgg yàlla masuma gaax. man mii de du ma ko tardé. émission bi nag moo ngi am altine bu jot. bu 18h jotee jàpp 19h rédivision bi di am chaque dimanche bu 11h jotee jàpp midi théâtre radiophonique nag lay doon. loolu de mooy bu la rawee rek nga dàq bee. dama ne xaw ma kan de waaye man duma ko tardé ci mukk. participer ci émission bi mën nga ñoo envoyé si suñu numéro whatsapp bii di 77 424 94 73 424 94 73. leer na naa ñu ne midi. Covid 19 bii lu am la. feebar bu bon a bon buy rey léegi nag nañu man koo jëlee ko fi mu jóge fi ba faw. dama ne kon nanu fexe kat jóg xeex lii ndax mu jóge fi. naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem. diisoo ngir aaru Africa moo leen ko may ànd ci ak Theatre ak Google News Initiative. waaw euh, sama technicien bu jomm ñaaw bi muy Fallou damay dellu si waat di wax ne émission bi nag dafay am altine bu jot ci 18h ba 19h dinañ ko jàllale waat dimanche ci 11h ba midi. pour que ñi nga xam ne si ne dañ ko tardé woon ñu mun ko déglu euh, loolu mooy li nga xam ne si ne tey jii loolu la ñu war a def ak yéen ci émission bii nga xam ne si ne moom mooy théâtre la radiophonique bu ci loolu weesoo tey jii dañ am si ab thématique bu ñuy dem thématique bi nag gindeeku la tudd histoire bii ñu leen di woon ci euh, ci théâtre bi si radiophonique bi histoire Modou la Modou moo am histoire am léegi nag il faut ñu déglu histoire Modou bi suñu dégloo histoire moodu bi dinañ mën a intervenir ci théâtre bi daal di wax seen xalaat joxe seen xalaat ci li nga xam ne si moom lañu ñu dégg parce que moodu dina intervenir ci pièce bi ngeen xool fu mu jëm su ngeen gisee ne moodu mi ngi jëm fi nga xam ne si ne àndul ak ñi mu nekkal ngeen mën a wax stop su ngeen waxee stop foofu nga wax fan nga bëgg a duggee ci biir pièce théâtre bi ak ban acteur nga bëgg a ci biir pièce bi bu ko defee da ngay woote si numéro téléphone bi suñu numéro whatsapp bi muy 77 424 94 73 mun naa bamtuwaat 77 424 94 73 bu ko defee nga dugg daal di joxe sa xalaat remplacer suñu acteur ñu mën a daal di commencer théâtre bi léegi nag dama bëgg nag ngeen déglu histoire Modou bi ngeen xool tey Modou naka lay doxalee journée ngeen déglu ñu commencer théâtre bi xam ngeen ne fecc bu bees tàq la ñu war a créer donc nag pas de dafa war a leer ba pare affaire dafa war a am rythme suñu demee mën a jommal gars yi n'est-ce pas. kon nañ commencé ah. mhm. Yacine Yacine Yacine yow tamit mais lan la ñu wax léegi dañu war a teg affaire ci yoon. mais Modou teg naa ko ci yoon. non tegoo ko ci yoon parce que yaa ngi ni mel na ku kii wuy ma nañ ko gérer a ah. aca 5 6 7 8. non Yacine wu nag. dëgg-dëgg. ah mais li may def nii du concentration. non non non entre concentration respectel paa ñu dem suñu yoon d' accord. ok les jaajëf jaajëf jaajëf léegi nag damaa amoon benn xibaar ma leen doon xibaar léegi léegi li ma leen bëgg a wax moom mooy wax leen alhamdulilah. alhamdulilah ñu doon jéem wut sotti na suba dañu war a déposer ji pour visa yi. waaw jërëjëf léegi nag li ñu war a def moom mooy. suba dañu war a teel a yeewu kon nag dañu war a tas répétition yi instant bii ñu dem dallu ji. su ko defee suba suba teel ñu mën a daje dem déposer suñu ay visa. jaajëf président jaajëf jaajëf Modou Modou Modou. waaw Bigué Bigué. eh Modou. Eh. waaw Bigué maa lay dégg. Ah. lan ba jàmm la. Modou dawloo nga ma ba ma sonn. seen kër laa doon dem léegi. suñu kër baa jàmm. naa def baa yaa ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax waaw waaw Modou nga jógee nii te takkoo masque. Bigué xoolal laa yow Modou xanaa xamoo mu toll Modou déglu nu nit di doxee te du takk masque waxuma nga ñëw sa loxo bii dama ko taal yaa gën a xam ne duma la nuyu Modou damaa bëgg nga delloo si sa xel. Modou dëkk baa ngi toj de xanaa doo seetaan télé wala doo dégg rajo chaque jour nga dégg ne cas yi moo ngi yokk waxuma la nag ñi ciy dee chaque jour nga dégg ñu ne la ñaata moo ñu ci am damaa bëggoon Modou ñu ànd def sensibilisation ndax kat porteur de voix bi te boo waxee nit yi dinañ la déglu moo tax ma bëggoon ñëw seen kër. bii kon yow yaa ngi ci seen affaire yu ñàkk fayda yi ba léegi hmm? yow da yaakaar na man jot bi ngeen am man am naa jot boobu noonu beneen bi ci des ñuy ñëw gëm loo leen ay feebar naan leen ay corona Covid ak yooyu noonu ngeen koy gëm feebar bi existé wul eh? amul juste tubaab bi dañ ko def pour jéem noot nit ñu ñuul yi diminuer leen ñun xam nañu lépp de. yow Modou li ngay wax fan nga ko teg. ci lu leer ñu da nga yaakaar dañu gëstu amuñu ay information ñun xoolal bis bu yàlla sàkk ñu ngi ci whatsapp bi tiktok yi. ak yooyu yëpp ñu ngi ci. dama ne la Modou delloo si sa xel xanaa xamoo ne koñ bi li muy bëri dese dese yëpp li ci ëpp Covid la te damaa bëgg nga xam ne soo yërëmul sa bopp nga yërëm sa papa jee nekk ci kër gi xam ne mag la te tension moo ko sonal xanaa nag bëggoo mu dem ci Covid bi te Covid. bii bii bii je t'arrête gis nga waxu dese yi ngay wax naan ay cas Covid loolu yéen yéen a ko bind ci seeni i këyit naan ay cas Covid. yow bari na ay maire yi nekk fii nii ci koñ bi dañu feebaroon avant ñuy wax waxu Covid bi bi ngeen def seen kii certificat de décès yooyu noonu da a bind ay cas Covid te fekk ne amul c'est pas vrai yéen feebar bi ngeen di wax amul amul beneen bi ci des man awma ma seen jot di ànd ak yéen di dugg naan maa ngi sensibiliser kenn. corona bi ngeen di wax amul man tal naa leneen lu dul nekk fii di sensibiliser sama voyage bi ma war a dem moom laa tal. <laughs> Modou nga ne dangay voyage yow yow la laay doy vaccin. yow xanaa déggoo liñ la wax Europe kenn mënu faa dugg te vacciné xam nga lan laa lay conseillé Modou mooy nga dem vacciné wu te respecté mesure barrière yi corona day rey de xam naa ne sax sa yaram dafa tàng kenke dinaa ñëw seen kër gën a waxtaan ak yow. <laughs> suñu kër bul fa dugg de suñu kër bul fa dugg ndax sa waxu dof yi nii bëgguñu ko sax dégg et puis yow aw ma sa jot encore une fois. bul ma woote nag di ma wax sa affaire ñàkk fayda yi. bul fa ñëw dégg ma la wax bul fa ñëw bul fa ñëw. yaay yaay yaay waay yaay xanaa kenn yaay booy. naam. waay yaay boobu ba maa ngi woote boobu ba léegi ngeen nekk kër gi may woote wootee. Cheikh. naam Binta. soxna. naa kaay leen ñëw waay. Moodu yow na nga am. ñëw leen ñëw leen xoolal tey bu neex a neex laa indaale. nee na ma lan la bu neex loolu lan la. xoolal damaa war a dem état bi mooy suñu tournée boobu te su ma la ñu war a dem. xaalis bu bëri laay indaale. alhamdulilah rabbil alamin su ko defee nag ma jënd kër gi nga xamante ne yàggoon nañ ko rêvé. bu ñu demee dëkk suñu kër boobu kenn bañ ñoo sonal. daa yàgg ci sama taabu góor bi yàlla na ko yàlla mottali. yaay kay man lu may def dama lay ñaanal rek nga gudd fan ndax sa ñaan moom gis naa ko. Balak ma yaasin Njaay jaata Njaay sëtu Alburi Njaay bi yow xamoon naa ne sa kër baay gii li ma fi liggéey waaye li ma fi liggéey dina antuwaay. waaw waaw yaa moo Modou boo demee voyage nga indil ma ordinateur dégg nga sama xarit yi may jàngandoo yëpp am nañ ordinateur xaaral mu génn léegi wax leen sama mag bi day voyager. Modou man xam na laa bëgg. ay 12 Pro Max bu bees tàkk comme sama copine yi. Modou bu ma fàttee sama feebar bi dama bëggoon soo demee nga dimbali ma ma mën a faju dégg xoolal ñaanal leen ma rek ma egg ci jàmm lii ngeen wax ni yépp su ma ñëwee incha allah lépp dina kii Cheikh yow moom bul am xel ñaar su ma ñëwee waxuma la xoolal hôpital mais hôpital bi gën a baax ci Sénégal foofu laa la yóbbu mu faj la bu soobee yow daal Modou. yal na yàlla rek defar sa lii nga xamante ne moom nga sumb suñu borom antul ko ndax yow lii nga mbébét yëpp yàlla ko suñu borom antu waaye ci barke Seydina Mohamed. caat yow moom gis nga su ma ñëwee waxuma la iPhone 12 Pro mais iPhone bu mujjee génn moom laa lay jëndal. Binta yow moom sa ordinateur bu ci am benn xel ñaar. merci Modou merci. xam nga ne yow sa jàng daf ma soxal.

waaw dafa am ay dëkk yi nga xamante ne ñoom nee nañu loolu dafa bokkoon ci seen condition yi quoi te gën itam waxoon nañu ko quoi waxoon nañ la ko yow tamit au début quoi. waaye président ñi dañuy sóob waaye yow feebar dafa am non président mais xoolal wuy ma président loolu mënul nekk waxtaanal ak ñoom non président wuy ma i coupé allahu akbar ay man yàqu naa. Moodu Moodu lan la. ca yàqu naa nag. Moodu lan la. waaye yaay bàyyi ma waaye nga naa ay lan la waaye may ma sama jàmm waaye yow. ay Moodu sama tension baa ngi yëngatu Moodu waxal ak man ya Moodu. waaye yaay yaay xoolal ñii suñu voyage bi ñu waroon dem noonu. suñu président moo ma woo ne ma du ma mën a dem parce que nee nañu aw ma carte de vaccination. ilaaha ay waay yaakaar waaye man yàqu naa yaay booy. ay waay fu ñu fan laa jëm fan laa jëm. Moodu sama ordinateur. eh eh may ma sama jàmm nga naa ma ay ordinateur. waaye dimbali ma waaye nga waaye xaw ma nooy def waaye yow maa ma sama jaamu waaye nga ay. na la man waxoon naa la damaa bëgg iPhone 12. xoola xoola xoola caade xoola bu ma nekk fi naan ay iPhone 12 de. waaye may la ma sama jaam man maa ngi nii bi ba pare ngeen may nekk fi ma sonal. ay Moodu Moodu li waxoon naa la ko ca njëlbeen ne woon naa la Moodu demal nga vacciné wu ji waaye yow da ngaa dëgër bopp kenn mënu laa wax loo dégg waa léegi Moodu natt bi ma jotoon a bokk na. waaye yaay sama yoon dafa nekk ma ay waxu natt yaay may ma sama jaam waaye dimbali leen ma waayam bàyyi la ma waaye may la ma sama jàmm waay ngeen nekk fi di ma solal nii naa ma ay waaye may la ma sama jàmm waaye dimbali ma man. ay sa feebaru mag ma am eh, na ay dimbali ma nga naa ma ay morom eh, xoolal boo taxawee di wax man naa waay yow naa ma ay kii. waaw Modou yow may la ma sama jàmm waaye bu dee la ma bàyyi waaye bàyyi la ma sama jàmm waaye. salaamaaleykum waa li xew Modou li xew si ma biir kër la ma xaw. papa voyage bi ma waroon dem lañ ma wax ne ma man du ma mën a dem parce que aw ma carte de vaccination. Modou lii ba amul woon ma rus moo du aw daxaa dëgër boppa Modou aw gëmulaa dara si àddina moo du aw demal vacciné wu una duma vacciné wu Modou lan la wax u yaakaar ne a gën xam nit ñi. xoola papa papa xam nga lan bul ma sonal de bul ma nekk fi ni nag di ma sonal di ma indil ay problème de mënu ma boole ñàkk dem ba pare nga fiy nekk fi ni di ma jaay affaire da bëri wax man nekkuma ci seen affaire de waaye may leen ma sama jaam waaye xanaa mënoo ma may sama jaam waaye Modou u ñafu aw ba ma la waxee rek papa xam nga man soxlawu ma nga may wax soxlawu ma nga may wax man bàyyi leen ma bàyyi ma ma nekk sama jaam bàyyi leen ma mënoo leen ma bàyyi ma waaye yéen Modou man sa bàyyi la ma sama yoon loolu man laa la wax a wax ba ilif ma xoola man kër gi sax laay génn pour mën noppale boog sama yoon pour mën a nekk sama jaam ah lii daal la mënoo la maa bàyyi. lii yëpp la sama jaamu waaye. waa sibiti waaye maa sibiti la ma. maa la sama jaamu waaye. Moodu a ñafu. jërë ngeen jëf euh, bi ngeen dégloo histoire moodu léegi nag dama am ay laaj yi nga xam ne si ne dama koy laaj sama laaj bu njëkk bi moom mooy ndax est-ce que am na li ñu wax histoire bu mel nii am na beneen bi ci topp ndax gis ngeen ku mu dal walla dégg ngeen ku mu dal loolu laay njëkk a laaj bala maa dugal sama invité bi mu présenté wu. daal di ñu wax ñu daal di commencé waxtaan bi nga xam ne si ne ni ñu ko waxtaanee woon moom mooy ku nekk dinga am pour nga dugg ci biir émission bi eh, joxe sa xalaat damay jox sama invité tey bi mu présenté wu wax moom mooy kan bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ku bëgg intervenir itam di nga intervenir si biir eh, émission bi jërëjëf maa ngi jox sama invité bi mu def présentation bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi nuyu seen eh, auditeurs yi. man journaliste laa Ibou mm-hmm. Fall laa tudd. Mm-hmm. Euh, journaliste man surtout presse écrite laa laa gën a yàgg. Mm-hmm. Euh, j'ai fait ans de journalisme. presse écrite. dama damay éditer benn journal bu tudd Le Tirailleur sénégalais. bind euh, naa tam li ñuy woowee les sénégalaiseries. samay samay livre depuis maa ngi doog a génne le septième. ci début. début septembre bi mhm. laay laay publier benn biographie sur Senghor mhm. euh, loolu daal laa laa jàpp ne mën naa ko wax waaw jërëjëf Ibou mhm. journaliste bi comme ni nga ko waxee tam euh, maa ngi lay dalal di la sant di la gërëm ci invité bi ñu la invité nga ñëw wuy suñu léegi nag dama doon laaj ba xam ndax euh, histoire Modou bi yow nan nga ko déggee alors lenn moom mën naa ko mën naa ko jàpp mooy bi corona bi yegsee am na ñu doon ne euh, dañuy wax rek waaye du du feebar bu am loolu moom jot na am ci réew mi am na ñu bari xam nga fii nag nit ñi dañuy ñaaw njort euh, waxi vaccin bi itam bi mu yegsee dañu jàpp ne daal dañu indil ay vaccin yoo xam ne dañu bëgg a faagaagal ñu ñu ñu ñu tubaab yee ñu bëgg noot ak loolu moom euh, loolu dafa yàgg am sax ci àddina li ñuy woowee complotiste maanaam dafa am loo xam ne saa yu dara amee dañuy ñaaw njor ne euh, li du dëgg dañu bëgg a nax am na dañu bëgg a sàkkal pexe loolu moom euh, yàgg na am ci ci feebar bu ne ci wàll wu ne nag mu am ñu ñaaw njort ñoo xam ne soo ne lii mës na fi am ñu ne mukk nit ñi daal ñoo ko sos rek waaye dañuy bëgg a sàkkal pexe loolu moom xam naa ne yàgg naan ci àddina bi. ci ci suñu dëkk waaw léegi euh, dañ mooy wax auditeurs yi tamit aussi mun nañu envoyer seen message ci suñu numéro WhatsApp bi suñu numéro WhatsApp bi mooy 77 424 94 73 wala ci page Facebook bi arobase africacheck point fr tamit mun nañu fa euh, def seen i laaj ba pare tamit mun nañu. bu joxe seen laaj après dinañ leen woo ci suñu numéro whatsapp bi su fekkee ne posé nañu question léegi nag li ñu doon waxtaan ni monsieur Fall boo dégloo histoire Modou bi. waaw yow lan nga xalaat pour Modou. ah li ma njëkk a jàpp mooy euh, dafa dafa sàggan. Mhm. ndaxte dëgg dëgg euh, ñàkku ñun bi ñu nekkee xale ba léegi euh, dañuy ñàkku. feebar bu fi mës la jël àddina bi tol nañ ko pexe maanaam xale yu bari dañuy ñàkku fièvre jaune feebar yu bari mhm. noonu lañuy ñuy aaree njaboot gi donc su dee dañu toggati ba mhm. gis beneen euh, wàll boo xam ne war nañ ko ñakku war nañu mën a wóolu ki la jox ndékki su la nee xaaral añ nga mën koo gëm beneen bi mooy euh, xam nga soo dégloo Moodu bi muy bi muy yaakaar ne day dem waaw yenn na àddina te demagul Euh, est-ce que foofu mën nañu fa taxaw tuuti. waaw euh, nu ñu fay taxawee moom mooy ci parti théâtre bi nga déglu noonu ci rajo bi. Hmm. si ban parti nga bëgg comme noonu waxtaan ak Modou ndax est-ce que mun nga waxtaan ak Modou ci foofu. ah waaw xam nga euh, ñun nag suñu suñu askan moo moo bindoo noonu li ci bare dañuy dañuy yaakaar ci benn nit hmm. yàlla boo bu ñu yaakaar ne da ngay da ngay génn bitim réew ñu sas la sas bi nag li ci doy mooy du ñu xam li nga nekkee dañu yaakaar rek euh, suñ la ko tegee nag soo sàgganee tuuti di nga def naka sudul dul noonu mm-hmm. nit nag suñu sañoon ku ci ne da ngay da ngay teral sa sa waajur teral say mbokk say am di jàmm euh, ñu mën la tiitaroo waaye loolu du ci njëlbeen bi lañ koy yaakaar dañuy bàyyi ba mu sotti dañoo foog naa dañoo gaawtu xam nga demagul sax ku nekk wax soxlam boo tax yaakaar yi suy tas dafay xaw a metti dëgg la nga baal ma monsieur Fall ma waxaat rappeler auditeurs yi nga xam ne si ne mun nañu envoyé seen message ci suñu whatsapp bi ci numéro bi pour ñu participer ci ci ci waxtaan bi mooy 77 424 94 73 bu ñu fa participer bu ñu bindee seen message mun nañ leen woo téléphone ñu participer daal di bokk ci waxtaan bi hmm. wala ci page Facebook bi arobase africa check point fr pour ñu mën a participer ci émission bi ñu ni seen xalaat tamit joxe ci seen xalaat monsieur Fall su fekkoon ne yow da nga waxtaan ak euh, Modou te gis nga Modou position bu mu jël est-ce que mun nga waxtaan ak moom ci ban xalaat nga xalaat ne war nga ko mun a waxtaan ak moom ci pièce théâtre bi fan nga bugg a waxtaan ak moom ak ci famille bi soo ko dégloo ci biir famille bi. bi yaakaaram tase. waaw euh, xaw na ñàkk teggin. xaw na ñàkk teggin. teggin waaw ni muy waxee xam nga boobu xëy na hmm. ñëg na waaw yaakaaram tas hmm. ni mu tontoo ay waa këram bi ñu ko laajee fan la toll xam naa boobu nag ñàkk na ci tuuti sago waaw foofu noonu nag léegi nag ci bu ñu waxtaanee ak famille bi foofu noonu dama doon xool ci ñooñ kan nga ci mën a remplacer yow tey jii pour wax ak Modou mii tey ci famille am boobu kan nga bëgg a jël place am tey pour waxtaan ak Modou ci ñàkk teggin boobu nga gis mu am ko ci envers famille am su fekkee déglu kan nga ci bëgg a suma jumul euh, waajuram bu góor foog naa am na lu mu ci wax waajuram bu góor am na lu mu ci bëgg a wax léegi nag dama bëgg nga déglu ñu teg ci partie bi nga xam ne si ne waayam papaam la mhm. moo ci intervenir boo gisee ne Modou mi ngi dëng rek mun nga wax stop soo waxee stop rek dañuy arrêté nga wax ak Modou loolu mun na nekk bisimilah Fallou salaamaaleykum waa la xew Modou li xew si ma biir kër la ma wax. papa voyage bi ma waroon dem lañ ma wax ne ma man du ma mën a dem parce que aw ma carte de moo du lii ba amul woon ma rus moo du aw daxaa dëgër boppa Moodu aw gëmulaa dara si àddina moo du aw demal vacciné wu una duma vacciné wu Moodu lan la wax u yaakaar ne àgg na xam nit ñi. xoola papa papa xam nga lan la bul ma sonal de bul ma nekk fi ni nag di ma sonal di ma indil ay problème de mënu ma boole comme ni ñu ko waxee woon hmm. léegi nag sa xalaat lañu bugg nag lan nga mun a jàppale moodu pour waxtaan ak moom parce que Modou ni mu taxawee mun naa mi ngi jaar ci benn yoon bi nga xam ne si ne doxul jërëjëf mun nañ commencer li ma koy njëkk a wax moom ngay waxal directement Modou Modou mooy euh, li gën a jafe ci nit mooy nga nite nite nag mu neex ak mu naqadi danga war a nite parce que loolu mooy mooy euh, mooy sa ndam xam nga am ak ñàkk ñooy ànd tey mu neex ëllëg mu naqadi xëy na sa yaakaar dafa tas xëy na fii mu toll nii euh, sa xel ubbu na waaye li nga warul ñàkk mooy euh, sago nit day am sago. su papa papa bu fi nekk nag di ma jéem a théorie waaw man li may ñàkk ñàkk naa ko ba pare te lii lépp seen affaire yi ngeen gëm nii ni moo ko moo ko waral bàyyi ma sama jàmm nag bàyyi ma nekk sama jàmm moo gën xam nga euh, dara xëyul nit yàgg na bañ li gën ci moom nga tukki feebar dal ci àll bi doo am mbokk bu la taxawoo doo am ku la jàppale nga tumuranke fa xëy na euh, loolu la lañ la muccal ndaxte soo génnee réew mi amatoo fenn amuloo banqaas kii nga nekk fii soo fi feebaree lu mu néew néew ñu ñëpp mën nañu mën nañu ànd jàpp jàpp fii jàpp fële ba seet naka la ñuy fajee sa soxla waaye bés boo demee nekk ak sa bopp yow kese euh, xamoo fa kenn amoo fa mbokk euh, lu lay dal dangay xam ne doo am foo koy lonk lii papa papa papa ñii nii feebar bi ñuy wax nii nii yow xam nga ne amul beneen bi ci des man ñàkk vaccin ñàkk vaccin yow xam nga ne vaccin bi wóorul ndax xam nga ne ñoom dañ koo def uniquement pour xeex population bi kon man maa fi dul nekk di jël ay vaccin te bu dee fekkee ne loolu mooy tax ñuy kii maa ñoom la. leen di mën naa la ko wax vaccin moo la bàyyi fii ndaxte bi nga nekkee xale ba léegi saa yu ñu demee hôpital dañuy laajte sa vaccin balaa ngay dal école dañuy seet ndax sa vaccin yëpp def nga ko vaccin moo la fi bàyyi ku la jox nag euh, ndékki su la su la diggee añ nga mën koo xaar donte. feebar bi amul li gën a wóor day màtteeg du màtte nga nga aar sa bopp mën na la bañ a dal loolu xayrul waaye nag li gën mooy nga nga ñàkku ndaxte su yegsee sa kaw euh, ñàkk bi dina la dina la aar ba ni mu la naroon dal day wàññeeku nit dafay nit dafay aar boppam man pareeguma pour tey la sama bakkan de bu dee man ak man kese moom ñàkk moom duma ko def ndax man pareeguma pour dee. xam nga ñun su doon sax jàmbur ci àll moo la koy moo la koy sant waaye mënoo mënoo xalaat ne ñun ñi say waajur danañ la dugal ci loo xam ne dalay sànq mënoon nga doyloo suñu wax ndaxte ba léegi liñ la liñ la yaree ba tey euh, moo la jig suñu wax nag yàgg na la jig su ma sañoon di nga ci jàppaat ba léegi. fi mu toll nii moom mooy loolu moom ñàkkuma de man sax kër gi laay génn man mën a noppalu mën a am sama jàmm. nit dafay ànd ak sagoom xam nga balaa ngay ne naam ne fa li ngay wut li ngay wut ci àddina na ko na ko fekkee te tal ko ndaxte soo fi xëyee bés di di teel a teel euh, ba feebar fekk fa sa wërsëg xam nga fan la lay fekk sa biir bàmmeel xam nga ngoog jërëjëf monsieur Fall jërëjëf euh, Modou ci li ngeen defee waxtaan bi mais monsieur Ibou Fall dama lay laaj est-ce que yow fexe nga ba Modou comprendre vaccin bi. ah jéem naa est yomboon na. jéem naa mais xam nga xam nga nit day toll foo xam ne du neex a waxal. ndax boobee ubbu. soxlaam su su ëppee bopp bi. Euh, wax ak moom de nee nañu nag ku bëgg a tukki ak ku bëgg a toxu ak ku bëgg a sëy neexul a waxal. moo tax da ngay da nga koy koy jéem a junj rek. waaw yaakaar ne xëy na li ngay waajuram. Mm-hmm. mooy tax mu mu doy la waaye xam naa ne du neex a waxal ci koo xam ne yaakaar dafa tas. jërëjëf euh, monsieur Fall euh, ba tey yaay sama gan. tey doon naa la laaj lan nga mun a yokkal Modou ci vaccin Covid bi. lii li ma ci xam mooy benn lii lii xam nga ñun dañu dañu bokk ci àddina bi. dëgg la soo bëggee di dox ci àddina bi. da ngay fexe ba luñ la laaj nga mën ko joxe ci kayit. su mhm. suñu ne soo bëggee tukki da ngay am parce que vaccination Covid bi rek amul am na dëkk yoo xam ne yeneen vaccin lañ lay laaj. ay fièvre jaune ay kenn xamul. am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na def sëñ bi. ñu sant yàlla a baax a baax. noo tudd fooy wootee. man la Sadio Diabat maa ngi wootee Pikine. maa wootee Pikine. waaw. bi nga dégloo histoire Modou bi. Euh, waaw maa ngi koy jàpp waa di ko déglu tuuti waaw. yaa ngi déglu histoire Modou bi. waaw waaw waaw. ci ban partie nga bëgg a ñëw pour euh, waxtaan ak moodu si boo dégloo pièce théâtre Modou bi. man nag côté bi ma bëgg waxtaan moom mooy côté ci vaccination bi. côté vaccination bi. waaw foofu nga bëgg a waxtaanee ak moom. waaw maanaam ci bu mu nekkee ci salle de répétition bi wala bu mu nekkee si kër gi ñu koy wax ne ko dematoo pour euh, vaccin bi foofu fan fan nga ci bugg a ak moom. su ma su koy conseillé pour mu jël vaccin pour mu. pour mu jël ko. waaw. waaw dafa am fa xam ne si dañu koy annoncé ne ko euh, doo demati parce que amoo carnet de vaccination muy ñëw si kër gi di ko waxtaanee ak waa kër gi. donc léegi man soo ma waxee fan la ak kan nga ci bëgg a pour waxtaan ak Modou nga wax ma dama lay tegalaatal pièce théâtre bi nga déglu ko. ci kër gi laa kër gi nga bëgg waxtaanee ak moom. léegi kan nga ci bëgg a ci kër gi parce que kër gi am na yaayam am na papaam am na ñaari sëram yu fi nekk ak magam bu góor. papam papam laa bëgg a papam. nga bëgg a bi papaam di ñëw ci kër gi fekk leen fi. waaw di wax ak moom. Mhm. acca bi Fallou. li xew si ma biir kër la ma xam. papa voyage ma waroon dem lañ ma wax ne ma man du ma mën a dem. parce que aw ma carte de vaccination. Moodu lii ba amul woon ma rus Moodu aw daxaa dëgër boppa Moodu aw gëmulaa dara si àddina Moodu aw demal vacciné wu una duma vacciné wu Moodu lan la wax. ku yaakaar ne àgg na xam nit ñi xoola papa papa xam nga lan la bul ma sonal de bul ma nekk fii nii nag di ma sonal di ma indil ay problème de mënu boole ñàkk dem ba pare nga fi nekk fii nii di ma jaay affaire da bëri wax man nekkuma ci seen affaire yi de waaye may leen ma sama jaam waaye xanaa mënoo leen ma may sama jaam waaye Modou ku ñafu aw ba ma la waxee rek papa xam nga lan la man soxlawu ma nga may wax soxlawu ma nga may wax man bàyyi leen ma bàyyi leen ma ma nekk sama jaam bàyyi leen ma mënoo leen ma bàyyi xanaa man sa bàyyi la ma sama yoon newu ci loolu man laa la wax a wax ba wilif xoola man kër gi sax laay génn pour mën a noppal boobu dem sama yoon dama mën a nekk sama jàmm. jërëjëf ah. léegi dégg nga ko. waaw waaw waaw léegi nag dañoo bëgg nga waxtaan ak Modou. léegi Modou ngi noonu yaa ngi noonu te yaay léegi nag papaam nga. dangay ngay wax ak Modou. Modou. papa waaw. Modou man li ma lay conseil Modou. waaw. nga dem vacciné ji. papa man vaccin du ma ko jël ndax xam nga li nekk ci vaccin yi risque yi ci nekk yëpp man du ma fi nekk di jël risque yooyu noonu naan maa ngi vacciné mais dara nekkul ci vaccin bi dara nekkul ci jàmm rek boo fa boo vacciné sa jàmm rek la. yow papa yow li ñu wax ci vaccin yi dégg nga ko nee nañu vaccin yi dañ ko indi uniquement pour wàññi population africaine bi. man léegi mënu bëgguma bokk ci ñi ñuy wàññi man damaa bëgg a dund waaw atteindre samay objectif loolu laa bëgg. mais li ñu ñu dee wax noonu dañu leen trompé dañu leen nax ndax comment dire pour dañu leen conseillé pour nga jël vaccin bi mu tax pour sa wér gu yaram la. wér gu yaram pour nga atteindre sa naa ko ba amul wér yàlla loolu atteindre sa objectif. yow da ngaa wóolu vaccin yow. mais dama ko wóol bu baax a baax 100 pour xam nga ne man damaa nekkul di jël risque yooyu noonu la ndax xam nga ne vaccin yi bu fekkee ne sax tey jii nii waaw man deewu ma sax mais dañu wax ne boo ko jëlee tamit doo mën a am doom te man dama ñaan yàlla am samay njaboot. mais di nga am doom di nga am am ñoo xamante am nañu jël nañ ko tey am am nañ doo am benn jafe-jafe am benn problème peut-être boo ko jëlee moom doo am benn jafe-jafe doo am benn problème. te dégg naa boo ko jëlee tamit dañ lay programmer maanaam foo mënti nekk dañ koy xam te loolu man du ma ko nekk man defuma ko daal man Pape man maa deful loolu. xam loolu lépp dañu lay aar loolu dañu lay aar ndax boo boo amee carte carnet de vaccination foo mën a dem rek mu nga am nga jël mais boo amul carnet de vaccination mu la tuuti. man en tout cas feebar bi ci boppam feebar bi ci boppam dañ amul ñoom dañ ko def politique nii nii pour nekk mën a xam africain yi naka la ñuy doxalee wàññi leen pour mën a gérer adduna bi te loolu man du ma ko nangu papa. man loolu du ma ko nangu ana xanaa gis ana gisoo ñu koy ñu ñi ci dee. ñi ci dee fan. gisoo lool. ñi ci dee noonu yow ñooñu seen heure moo jotoon rek. soo lool. ñi ci dee seen heure moo jotoon. non. wala li ma lay conseillé nag jëlal vaccin bi mooy sa jàmm ndax boo bëggoon tukki nga sa carte vaccination foo mu a demee di nga jël boo bëgg jël avion di nga di nga jël am benn problème mais boo amul carte vaccination mu la tukki mu la jël avion mu la voyagé mu la dem fenn. lan mooy sama avantage si bu ma jëlee vaccin bi. sa wér gu yaram da lay protéger da lay aar. waaw. da lay aar. waaw loolu mooy sa njëriñ. waaw yow yéen feebar bi mais sa wér gu yaram mooy lépp nga naan ay aar kese. man maa ngi aar mooy lépp da lay protéger te mu nga dund dund nice soo ko tukki nga tukki tukki du rafet am benn pour am benn jafe-jafe. waaw daal man xam nga lan la. waaw lan la man man maa dul jël vaccin bi man maa jëlu vaccin bi te man damay génn dem sama yoon. waaw man fi mu toll nii maa ngi maa ngi sama wér-gu-yaram bu baax a baax waaw instant ni feebar moo tax ñu xaj ma sama milliards yi ma waroon am dew ma tourné ah lépp ak seen affaire yi ni ñu indi fii nii. non lii dañ ko dañ ko indi pour protéger sa population bi pour aar leen mais loolu moo am solo. baax na soo oo mel du am wér-gu-yaram te boo am wér gu bu noo def dara. Ah, la santé avant tout. baax na dinaa ci xalaat mais en daal promettre lu ma ne dinaa jël vaccin yi. xoolal li ma bëgg nga promettre ma ko jël ko boo ko jëlee ma mooy sa jàmm àdduna. man man balaa ma koy jël nii nii damay xool bu baax de damay bàyyi ba gars yi vacciné wu ma xool leen. bu leen dara jotul nag ba mu wóor ba mu leer ma soo ko jël. xool ñaata ñaata doomu aadama moo ci vacciné wu. man instant xamu ko kenn de man ñi ma dégg ñi jël vaccin bi yëpp après am nañu ay problème te man loolu noonu laa dul am. mais par boo ko comparé ñu ko jël ñu amul problème ñoo gën a bëri. ñan ñoo ko jël te amuñu programme yow da nga ci àdduna ñoo xam ne jël bi amu amuñ benn ah mais bien sûr jëla ko waaw ah, dinaa ci xalaat waaw jërëjëf teg ci baa baam li ma léegi jël ko mooy sa mooy sa jam moo lay ah, arrangé dinaa ci xalaat dinaa ci waxuma daal naa jël mais instant moom fi mu toll nii xam nga lan mooy sama problème man sama carrière bi ñu yàq nii loolu mooy sama problème ah? ñu yàq loolu mooy sama problème parce que mais du yàq du la yàq sa du la au contraire au lay da lay yokkal dalee ubbi buntu buntu la lee ubbi. papa est-ce que xam nga ne fu nga dugg fay fu nga am sa carnet de vaccination. waaw boo amul sa carnet de vaccination mënuloo ci am accès. jërëjëf fàttali ma tur bi. man la Sadio Diabaté. waaw Sadio Diabaté ñu ngi lay sant di la gërëm est-ce que yow. merci maa si yéen. déedéet est-ce que li ma bëgg est que li nga bëggoon. am nga ko pour que Modou mu dem dem def def vaccin bi. yaakaar am na ko am naa ci confiance bu baax dina jël vaccin bi. dina jël vaccin bi. dina jël vaccin bi ndax loolu loolu loolu moo koy arrangé. est-ce que yomboon na. yombalul loo gis jërëjëf Sadio vraiment kontaan nañu ci yow ci sa intervention bi am na solo trop trop trop. ñu ngi lay jaajëfal di la jox euh, dox daje beneen yoon. jërëjëf jërëjëf léegi ne damay fàttali euh, tuuti rek auditeurs yi que ne ñoom it mun nañu envoyé seen message ci numéro WhatsApp bi mooy 77 424. 94 73 bu ko defee nañ leen woo tamit ñoom it ñu joxe seen xalaat wala ci page Facebook africacheck point fr. Euh, monsieur Fall ba dellusiwaat yow comme ni ko déggee ñuy waxtaan ci biir euh, soir Modou bi pour yow yow Modou mooy taxawaayam ci soir moom en fait ñi ma ko jàppee. Hmm. mooy dafa dafa nekk ci xam nga ñun suñu suñu askana bind noonu. Hmm. soo nekkee xale lu góor. nekk am ay ay jigéen. say say waajur di ay mag yaakaar bi ñuy def ci yow ndax nga mën yor say waajur faj seen seeni tawat da lay ràngati maanaam da ngay da nga ciy dem ba léegi léeg dootoo ci am sago kuñ nekk bëgg nga tiitaroo euh, teral say waajur teral say waa kër loolu nag kër goo gis ci dëkk bi noonu la bindu jërëjëf monsieur Fall ma dellusiwaat ci ci yow damay poser benn question est-ce que vaccin bi dina aar wala du aar ah man euh, li ma li ma jàpp mooy gannaaw boroom xam-xam yi xam nga lu nekk tam. Mhm. ak ki ko jàng ak ki ko xam. gannaaw boroom xam-xam yi xam nga àddina bi kuréelu àddina bi yor wérgu yaram. balaa ñuy nangu vaccin yi. dañ koy jàngat ba seetlu ko ba xam ne lii am na njariñ gannaaw nag ñi nga xam ne ñoo ko jàng ba mokkal ko euh, joxe nañ ci seen xam-xam wóolu nañ ko ñu ñi nga xam ne jànguñ ko nag war nañ leen mën a. wóolu topp seen wax. li ma jàpp nag ne moom lay ñàkk bi di indi. mooy su la feebar du du la teree. allo feebar. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñoo ngi fii sëñ bi. noo tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Mariama Niang. Mariama Niang. waaw. Mariama Niang bi nga dégloo histoire Modou bi. waa déglu naa ko kay. déglu nga ko bu baax a baax. léegi nag dama la doon laaj fan nga xalaat ne mun nga waxtaan ak Modou. ci li nga dëgg man si yaayam. ci yaayam muy waxee moom. waaw. foofu laa bëggoon intervenir. fi yaayam di waxee foofu nga bëggoon intervenir. waaw kon boog ci kër gi la boobu defe naa. ci kër gi waaw. ci kër gi la. waaw. Euh, biñ ko annoncé rek ne ko mënatoo dem. biñ ko annoncé ne ko mënatoo dem. waaw. waaw léegi nag. dañ koy delloo siwaat buñ ko delloo siwaatee ba nga xam ne si fii la yaayam doon wax dangay wax stop après nga dugg wax ak Modou leer na leer na nañ jërëjëf Mariama Niang léegi ñu ngi lay déglu nga déglu bu baax a baax jërëjëf merci beaucoup Fallou ñu ne man du ma dem ndax ay lan nom de Dieu yaay ñii nee nañu man mënatuma dem ndax awma carte de vaccination stop. waaw Mariama ñu ngi lay déglu nee nga stop ñoom ñu ngi lay déglu man fan laa jëm yaay waaye léegi yaay man fan laa jëm Moodu waaw Moodu yow tamit lii yépp yaa ko teg sa bopp ci naka te yow Moodu nga dem vacciné wu ji loolu lan la lay wàññi yaay xoola bul ma nekk fi di ma wax sa genre wax yii de yow xam na bu baax damaa bëgg nga déglu ma waa waxal sa moroom yee dem gënuñu la ña nga ne ñoom ñëpp dañoo dem vacciné wu ji ba tax tey ñoom ñu dem yow nag yow kase bu buñ la seppee ci mbooloo ne la demoo ndax ñàkk vacciné wu ji ñoom kay sa jàmm lañ la bëggal damaa bëgg nga dem vacciné wu ji ni say moroom moo gën sa yii ngay def. yaay yow yaa gën a xam ne vaccin yi wóorul te fas yéene ma kaa def te man ñii nii man ñoom ñoo gën a xam ne man fi mu toll man maa nekkoon leader bi lan moo tax ñu may génne ndax ay karne de vaccination ah. ah Modou loolu nag la ñëpp santaane. li waa kër docteur santaane mooy ngeen ñàkku ñoom kay leen wareef rek la ñu def. man maa ngi wér dangaa war a dem ñàkku ji. man maa ngi wér penn amul benn feebar bu mën a yóbbul. Moodu yow gisagoo ñàkk yi ku mu rey demal nga ñàkku ji moo gën li ngay def nii tegoo ko ci yoon man maa la jur nag dama lay wax dëgg soo bëggee sama nekk ak yow neex demal nga ñàkku ji aar ñu ñun ñi ci kër gi aar sa bopp loolu mooy dëgg mooy yoon. man maa ñàkkuwul nag yaay. waaw ah. man ñàkkuwuma waaw xanaa yow problème yi ma nekkee nii yow xamoo ko non problème yi ma nekkee xamoo ko man dèjà maa ngi leb xaalis si banque bi ah banque bi nee nañu instant nii nii il faut ma fay leen seen xaalis ah. ak yeneen ak yi ma naroon a def ñoom ñu xañ ma ko ndax ay carte de vaccination yow nga naan ay loolu yëpp après dañ koy waxtaanee loolu yëpp ci biir famille la xaj ñun ñii moom nañu lijjanti ba nga fay banque ba waaye daal leen la ñu mënul lijjanti mooy sa wér gu yaram tey sa wér gu yaram yaa ko mën a sa bopp demal nga jëli vaccin yi nga vacciné wu ji aar sa bopp aar say waajur yi ci kër gi jërëjëf Mariama Niang kontaan nañ ci yow maa nag am na laaj bu ma la war a laaj est-ce que li nga bëggoon a waxtaan ak Modou pour ci vaccin bi est-ce que am nga ko ah waxtaan naa moom de waaw ci li ma yaakaar te yaakaar naa ne bu dee dégg na sama wax ah. dina dem ñakku ji ndax ñakku yi def lu dul aar nit ñi nañoo war a dem vacciné wu ji ndax kër yi ay mag ñoo fi nekk xale yi nag ñoo leen mën a aar ci kaw ñu dem vacciné wu ji waxuñu kenn ku vacciné wul du am feebar bii di coronavirus waaye dina la mën a jàppale lu bëree bëri bëri. jërëjëf euh, Mariama ñu ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci sa intervention bi nga xam ne si ne moom nga fi indi jërë ngeen jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di gërëm sama invité bi nga xam ne si ne moom mooy Ibou di ko vraiment kontaan ci moom la sant di la gërëm émission bi yaa ko ubbi nga nekk sunu première invité ba di la sant di la gërëm bu baax a baax monsieur Fall waaw man man maa leen di sant di leen gërëm ndaxte da ngeen ma sagal. xam nga nag euh, teraanga du tuuti. dëgg xam nga ku la ku la yëg moo la sonal. dëgg la wax dëgg yàlla suñ la surtout que man journaliste laa. dëgg la suñ ma ay naataango suñ ma wooyee. Mhm. war naa leen wuyu si. nga xam ne euh, def ngeen lu rafet maa ngi mhm. leen di ci gërëm di leen sant. jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje altine bii di ñëw a partir de 18 ba 19h lii émission bi nag dinañ ko tegaat dimanche à partir de 11h ba midi émission bi ki leen ko doon jagleel nag moom mooy Africa Check ak plateforme ak ku euh, soutenir moom mooy Google News Initiative ñu ngi leen di sant ak groupe bi nga xam ne si ne ñoom la ñu àndaloon muy technicien yi ak directeur rajo bi ak Tumba. ak wàllu ak groupe bi nga xam ne si moom mooy acteurs yi muy Moodu ak ñëpp ñi nga xam ne si ne ñooy acteurs yi ci biir yi nga xam ne si ne ñoom ñoo def pièce théâtre bi ci sant bi gërëm di leen dox dajee beneen altine ci heure bi ba ci waxtu bi jërë ngeen jëf waaye magaay yéen yëg leen li ma yëg dégg na ma day mbéxam géej daxaa faj corona waaw maa ko gis ci Facebook bi ak ci Instagram bi WhatsApp ak TikTok. yéen def leen ndànk waaye yéen a ngi ci seen wax yi ba tey xanaa yéen da ngeen dul déglu rajo. rajo émission bu bees tàkk mooy am bu tudd diisoo ngir aaru. diisoo ngir aaru. loolu moom fu mu am. émission bi nag muy waxtaanee lii di mbasum Covid mi ngi amee ci rajo Oxygène FM. fréquence bi di 103 point 4. ah loo de man wax dëgg yàlla masuma gaax man mii de duma ko tardé émission bi nag moo ngi am altine bu jot bu 18h jotee jàpp 19h bi di am chaque dimanche bu 11h jotee jàpp midi théâtre radiophonique nag lay doon. loolu de mooy bu la rawee rek nga dàq bee. dama ne xaw ma kan de waaye man duma ko tardé ti mukk. participer ci émission bi mën nga ñoo envoyé si suñu numéro whatsapp bii di 77 424 94 73 424 94 73. leer na naa ñu ne midi Covid 19 lu am la feebar bu bon a bon buy rey nañu man ko fi mu jóge fi ba faw dama ne kon nañu fexe kat jox xeex lii ndax mu jóge fi. naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem naa dem. diisoo ngir aaru Africa Tech moo leen ko may ànd ci ak Theatre for a Change ak Google News Initiative